toll ci téeméer ak ñeent fukk ci ay sëriñ daara la Touba ci kanam doon defal formation bu jëm ci naka la ñuy yoree ndongo yi ci daara yi ginnaaw ñaari weer yu ñu amal formation bi tey jii ci dimanche ji yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre dëppoo ak juróom-ñeenti fan ci weeru safar ñi ci doon amal cérémonie de remise de diplôme El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi di ab sëriñ daara bokk ci njiit yi dellu si na ci formation bi. formation bi day mi ci eh, ay matières yoo xam ne sëriñ daara dañ ko yittewoo. lu mat euh, ñetti matière euh, ñeenti matière yoo xam ne benn mënu cee ñàkk ci daara euh, matière bu nekk ñu jël ñaar jagle leen ko ci misaal bu ñu jëlee li nga xam ne moom mooy alimu nafs at-tarbawi ñu jël ci Serigne Adama Ndiaye mu doon ko taxawee ak Serigne Chouin bu jaxate ñoom ñu doon taxawee ci lu jëm ci alimu nafs at-tarbawi alimu nafs mooy di jëm ci wàllu psychologie xale niñ koy xamee ay ay tolluwaayam niñ koy war a mën a yare ni xale yi wuutee ci ay xel ni ñuy wutee ci ak màggaay ni wute wutee seen wàllu social ni wute wutee seen wàllu yëg-yëg seen wàllu yëpp loolu matière boobu la doon jàngale ñaareel matière bi jëm ci wàllu tajwid tajwid moom mooy alquran dañ ko war a jàng jàng bu rafet jàngin bu rafet eh, da war a tënku it ci benn riwaay yow mi jàng yow mi ngay jàng eh, riwaayatu warsh ngay jàng wala riwaayatu xafs ngay jàng xaalun ngay jàng boo jàng da nga cee war a tënku boobu nag li la koy xamal nag eh, ak ak fànn la xam-xam boobu it sëriñ abul baraka mbàkke moom moo boobu ak sëriñ abdul xaadir Euh, am beneen matière boo xam ne moom mooy turuqu tahfiz turuqu tahfiz moom mooy yan méthode li ñuy jaar pour jàngal xale bi njàng mu gaaw njàng mu rafet euh, ca du yàgg ci daara yi ca am ay jafe-jafe ca it yoon yooyu boo ci jaaree dana tax ba euh, jëf sa jëflante xale bi nekk jëflante bu rafet matière bu am solo la moom it ki doon taxawee mooy ak docteur Mouhamadou Moustapha Diom Ndar ak man mi nga xam ne maay ndongalu ñàkk solo li di wax ak yéen ba nga xam ne moom moo ca tegee it nag di di di di matière bi nga xam ne moom it bu bu am solo la di jëm wàllu al idaara maanaam session nan la ñuy saytoo daara nan la ñuy saytoo xale yi sa digganteeg waajur yi xale yi nan la ñuy jàngee seen jàng ni ñu koy ni koy saytoo fu ñu toll nga xam nga xam lim lim jàng tey lim am ci ci weer yooyu yëpp di loo xam ne wàllu session moo koy moo ko moo koy moo koy moo koy euh, euh, tax mu mën a mu mën a sotti loolu it ñu amoon ci ñaari mbokk kenn ki mooy al oustaz euh, Mouhamed jaañ mi nga xam ne moom moo yoroon sànq micro bi ngeen ngeen ngeen gis ko muy ku ngeen ci xam bu baax a baax ki ci teg moom mooy Serigne Souleymane Badiane ñoom ñëpp di ay ay ay jàmbaar nga kon ñeenti matières yooyu jàng nañ ko ci diir bii nga xam ne moom lañ ko nekk sëriñ daara yi it nekkoon euh, téeméer ak ak ak ñeent fukk ndax ñaari euh, euh, majmua ko defoon ñaari groupe lañ ko defoon groupe A ak groupe B groupe A 70 la groupe B ñoom it 70 ñuy ñëw jeudi bu ñu demee ñee ñëw vendredi nga xam ne ku nekk it nag boo ñëwee jeudi da nga am quatre matières yëpp ci jour bi ñi ñëw vendredi da nga am yëpp ci ci jour bi ba ñu delluwaat ba alxames dellusiwaat ñu defaat noonu noonu lañ ko def ba durant bi mu jeex yi bu Mbacké loo bokk ci commission scientifique bu Touba ca kanam ñi doon amal bile formation mi ngi ñuy leeral budget bi nga xam ne Touba ca kanam génne na ko ngir taxawu daara yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba. comité commission bi nga xam ne mooy scientifique et culturel Touba ca kanam daf leen a wooteel euh, ci ci budget lu tollook cent million ne leen lépp ci daara yi la jëm. waaye nag ñu tegoon ñu ci yoon yoon bi mooy daara yi li ci gën a lëng boo xoolee ci dëkk bi mooy daara ni ñu koy sosee ci dëkk bi wala sax fépp Sénégal waaye rawatina fii ci dëkk Touba mooy da ànd ak ay moyens bëgg-bëgg rek lay doon da ngay gis ko wàcc mokkal alxuraan bëgg jàngale waaye du am benn ñii sax dañuy àbb ay daara ñii àbb terrain kooku nag bu ñu fa tàmbalee jàngale la ñuy mën du bari te it am na gone condition yoo xam ne mënees su koo yore loolu nag moo taxoon ñu dem di leen fekki ngir defaral leen ay néeg yoo xam ne gone dinañ ci mën a fanaan wala mbaar yu ñuy jàng wala wanag yu ñuy suturlu loolu moo ñu moo ñu motivé woon ci ñu def ko ren ji nag bi ñu ñëwee Euh, au lieu de trente daara comme daaw waaye dañoo tànn juróom-ñaar fukki daara juróom-ñaar fukki daara yooyu itam wax naa léegi ni ñu ko tànnee tànnin la woo maandu mooy xam ngeen ne ci fii fii ci dëkk bi sëñ Maam Mor Moussa Amadou Fadel moom la sëñ Mountakha dénk lépp lu jëm ci wàllu daara Touba ji kanam bi mu amee bëgg-bëggu tabax juróom-ñaar fukki daara dafa jël fanweeri daara ne nañ ko jagleel sëñ Maam Mor ne ko na ko tànn ci ak wàllam euh, ndax itam Touba ji kanam nit ñi dañ koo yaakaar. sëñ daara yi dañuy bind seeni bëgg-bëgg comme demande ñëw indi ko ci sees bi ne dañoo bëgg ku ñu dimbale loolu dafay tax Touba ji kanam du mën a jël daara yi teg ko ci loxo kenn ne ko liggéey ko waaye nag dinañ ci jël loo xam ne itam sëñ Maam Mor am na ñuy dem ci moom ne ko dañoo bëgg nga defal ñu mbaar bu ko defee la ko Touba ji kanam di jox moom ci yooyu ci yooyu la koy tànn tànnin wi itam dañoo amoon ay charte yu ñuy tànnee daara yi benn mooy daara bu Touba ji kanam di defar ci biir dëkk bii di Touba ngay nekk beneen bi ci des tam mooy ki ñuy defaral daara fi nga nekk yaa koy du nekk sama sama sama kër papa la nga xam ne mari détail bu fi jóge woon mën nga ko mën naa mën naa mën naa demee neneen dooreet pàkk bi dañ ma ko aal nga xam ne ba ko borom jëloon loola dañ du demee noonu beneen bi ci des du nekk daara internat boo xam ne da ngay fayeku ndax mënuñoo gis koo xam ne day jàng di fayeku gis koo xam ne day jàngale ngir yàlla ndimbal war ci ñoom ñaar ñuy jàppale keneen ki loolu mooy charte yi nga xamoon ne euh, tegoon nañ ko ba ca doole ko muy ñeenteel bi mooy yow mi naan kaa leen defal ci sama daara bu ñu ñëwee dañ naan la li ngay def lu na nekk na jëm lu jëm ci yittey gone yi mais doo defarul sa salle bi wala loo xam ne yow rek yaa koy jago day nekk loo xam ne bu ñu ko fi defee bu ñu dellusiwaatee dinañ gis gone yi di jàng loolu mooy moo doon charte bi loolu nag ci lañ dox ay weeri weer lu toll ak ñeenti weer yoo xam ne ñu ngi wër ci dëkk bi ginnaaw bi ñu jotee demande yi di xool ndax loolu am na mbir am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen dañ leen dañ leen dindi li tax ñu dindi leen mooy condition yooyu mataluñ ko am na ñoo xam ne seen daara bañ fa demee dafa gën titre foncier dëkk bi a delloo am na ñoo xam ne nii dañuy ja dañ doon fayeeku am na ñoo xam ne kër yi ñu bokk mook seen ñoom seen ay frère ak seen sœur ñoo ko bokk mënuñu leen ko faa defal ñu retiré leen. ci fàttali at mi ñu génn Touba ca kanam jëloon na lu toll ci fanweeri daara tabaxal leen ay mbaar ak ay barabu suturlukaay ren ji mu jël lu tolloog téeméer ak ñeent fukk ci ay sëriñ daara tàggat leen te fas yéene wu ñoo yem fii ndax seen bébét mooy fexe ba jëmale kanam dëkk bu sell bii di Touba. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kan waxoon na ne liggéey sëriñ Touba yomb na ndax day féetewoo coono bàyyi la sëñ kon war nañu góor góor lu baax te xam ne Serigne Touba kat li mat a fàggu lépp fàggu te waxoon na Serigne Amsatou na ko Amsatou sama dëkk bii sama xasida yi sama yoon bii sama dëkk bi doon lu ci kenn dara kon ñun ñëpp nañ xam ne dañoo nekk ci biir ñaan bu nangu dañoo nekk ci biir aaj du faju kon nañ sant yàlla bu baax te da gën a delloo suy lépp Serigne Touba te dox jëm ci moom bu ñu ko defee danañu gàttale ci àdduna te fañ bëgg ëllëg gi danañu